salaamaaleykum gars yi comme ni ma leen ko waxoon vidéo bee passé rek vidéo tay bi euh, ñuy ñëw ci li nga xam ne mooy suggestion de vidéo di leen fàttali nag ni yéen seen programme comment gagner de l'argent sur seen canal Galsen Tube euh, man mi leen koy defal ma tudd Pape Mor Lo di leen ko fàttali pour ñi nga xam ne ni dañoo ñu bees lañ ci canal bi di la demande nag bu dee vidéo bi da nga tëb rek dal ci nii ci internet bi su fekkee abonné nga abal ci abonné ci canal bi te xam ni fii vidéo yi ñu fiy def lépp loo xam ne nu ñuy gagner xaalis ci YouTube la moom lañ fiy waxtaane Euh, vidéo tey bi nag euh, suggestion de vidéo lañ leen di wax nan ngeen di fexe ba seen vidéo di ci apparaître suggestion de vidéo pour ñu ko xamul mooy sooy seetaan vidéo ci YouTube vidéo yi ñëw à nga xam ne toujours vidéo bi ngay seetaan boo xoolee day ëpp day nekk même ci vidéo bi ngay seetaan bu dee da ngay seetaan théâtre da ngay la leer nga leer à pour boo paree ci bii nga seetaan bu dee da ngay seetaan émission politique débat politique ay débat politique la lay indil bu bi di seetaan benn làmb ci bi nga gis dalay yeneen làmb à côté parce que loolu mooy suggestion de vidéo YouTube day détecté li ngay seetaan mu xool vidéo yu niroog moom mu tegaloo ko à pour nga gën a yàgg ci YouTube di seetaan mooy boo paree ci lii rek leneen lu la intéressé comme même thème bi la da ci nekk à côté léegi vidéo yi di feeñ à côté nag xam nga YouTube da defal promotion gratuitement yow nag ngay fexe fexe ba sa vidéo bokk ci vidéo yi nga xam ne YouTube da leen defal yaa ngi def présent vidéo comédie nga bëgg léegi su amee koy jàpp benn vidéo comédie rek di seetaan say thème ci même thème yaa ngi def comédie mais ci olof nga koy def su amee kenn ko jàpp Sa Ndiogou wala Kouthia wala ñoom max Mahfouz wala keneen su ko seetaanee ba pare nga bëgg sa vidéo nekk à côté pour kooku mën ko seetaan nan ngay pousser sa vidéo ba muy dem ci suggestion vidéo yi nga xam dafa bokk même tem ci thème bi ngay yëngatu vidéo tey bi ci loolu lay lépp loo xamante ni mën nga ko booster sa vidéo pouse ko pour am maximum de chance ak de ak possibilité pour mu vidéo yi euh, suggestion yi sa vidéo mën ci feeñ loolu yëpp dañ la ko wax ci vidéo tey bi comme ça vidéo boo dugalee ci rek nga mën koo booster pour euh, vidéo yi mu bokkal tam toujours bu ko nit seetaanee rek say vidéo ñëw à côté pour kooku tam mën ko seetaan kon ñu dem directement ci ordinateur yi ñu wan leen nan lañ koy defaree. booy duggee YouTube par exemple nga xool benn nga def euh, recherche bu doon da ngay da bëgg seetaan vidéo ci vàllum euh, làmb nga def par exemple nga làmb Sénégal. 2019 exemple nga bëgg xool làmb yi ñi nga mu indil la fi intégralité de combat Modou Lô Eumeu Sène nga cliqué woon ko di ko seetaan par exemple tey gis nga heure booy seetaan làmb ci ci li nga xamante ni mooy YouTube wala ngay seetaan vidéo bu mun munti nekk rek ci thème bu mu munti nekk dangay gis li si ëpp da lay indil fi vidéo boo xamante ni même chose la ci euh, li nga xamante ne mooy vidéo bi ngay seetaan ak yeneen vidéo gis nga bii làmb la làmb gis nga bii émission politique la làmb nga kii émission xam ne Khalifa bi làmb la bii gis nga mais dina leen toujours émission làmb léegi suggestion de vidéo mooy bi ngay seetaan vidéo bi vidéo yi YouTube indi la à côté ñooy suggestion de vidéo léegi fii autoplay la maanaam tey su ma defoon nii cliquer fii mu bule nii vidéo bi su ma ko seetaanee ba mu jeex automatiquement bii mooy ñëw commencé dawal boppam sans ma ma play ko su jeexee bii mooy si topp play boppam su jeexee bii si topp su jeexee bii mooy si topp noonu lay toppantee mais autoplay bi dama ko xam dama ko dindi parce bu jeexee pour mu taxaw man may choisir sax bu mu bëgg a seetaan léegi nan ngay def nag ba nga xam ne yow su nit di seetaan par exemple yow yaa ngi dem canal boo xam ne ci wàllu làmb ngay yëngatu ay émission làmb ngay filmer ak def ay montage di dugal ak di ko commentaire mais nga bëgg làmb bu nit mën a seetaan rek say làmb yow say làmb ñëw fii ci di rangaloo fii yii nii yow say làmb bokk fi pour nit ñi mën ko gis mën ko cliquer c'est très simple titre bi titre vidéo bi ngay seetaan en général da ngay fexe mu am relation wala moom ay mots clés yu si nekk yoo xam ne wala ay tag bokk yoo xam ni day nekk ci ci vidéo vidéo bi nga xam ne mooy daw tag yi fa nekk da ngay fexe mu nekk si sa vidéo yow ce qui fait toujours soo amee vidéo boo bëgg bu dawee sa vidéo daw rek vidéo bi da ngay fexe sa vidéo nuru ko le maximum possible mooy tax YouTube su gisee benn vidéo daw mu détecté ko day indi vidéo bu bu mu yaakaar moo gën a am moom relation mu indi ko teg ko à côté pour kooku yaakaar bii bu parees bii kat bii dina ko intéressé gis nga yaa ngi di nga ne ma ah kii de am na ko fi feeñ koo xam ni Pape vidéo bi politique la Pape Alé Niang mu invité Sonko du affaire làmb oui parce que chaîne yu bari tamit ci seen ay mots clés yi ñuy dugal nii ci tag yi ñuy dugal ak mots clés yi ñuy dugal même bu dee titre bi gis nga gisoo fi dara luñ nurule fii loo xamante ne affaire euh, mots clés la si bi ci tag yi ak ci description yi dañ ciy dugal ay mots yoo xam ne dafay am relation ak làmb parce que chaîne euh, canal YouTube bi bari yu nekk Sénégal bu ñuy dugal seen ay tag dañ ciy def mots clés yi nit ñi di gën a wër ci ci internet bi nga xam ne ay làmb ak ay Youssou nduur ak ay yooyu demee noonu loo xam daal lu nit mooy siiw la yu nit ñi utiliser dañ ko si def ak turu canal yoo xam ne dafa siiw ñu jël ko def ko comme takk ci seen ay kii comme ça booy seetaan loo xam dafa am relation mi ngi mel ni euh, papa euh, vidéo bi Yelli TV dugal. bi mu koy dugal mu def si lutte sénégalaise def si làmb ci moo clés yi dugal si sax euh, lutte TV exemple léegi ce qui fait booy seetaan vidéo bi YouTube day détecté ni ñoom am nañu relation bu ñu am mu indil la ko fi que YouTube du détecté image bi nga xam ne mooy génn ci li nga xam ne mooy vidéo bi image yi yoonam nekku si moom li ko intéressé bind yi la mooy mots-clés yi nekk fii ci sa titre mots-clés yi nekk fii ci sa description fii nga xam def si deful description bu gudd description bi mu def ni mu gàtte nii bu amee mot clé bu si nekk da koy tenir en compte gis nga combat gis nga moo ngi fi voilà mën na ko tenir comme mot clé gis nga fii seen làmb mën na ko tenir comme mot clé lutte TV gis nga day jël ay si si bind yi nekk fii lay jël laal référencé ay mot clé ko jël titre def ko téye ko ak tag yi nga xam ne wanoon nañ leen si vidéo bi nga xamante ni moo moo moo passé woon euh, nga xam ne bu fekkee ba nga ko seetaan bëgg xam nan ngay nan la ñuy defaree tag nga seetaan fi flèche bi ngay gis nii muy génn si kaw soo ci cliquer boo seetaanee vidéo ba pare mën nga ci cliquer mu génn ci beneen pass xaar la foofu boo seetaanee vidéo pare nga seetaan ko dinañ la wax tag yi nan nga koy defaree parce tag yi fi ne nii may seetaan yi doomu ko mën a gis parce biir vidéo bi lay lañ koy liggéey bi nga defaree sa vidéo fa ngay defee tag yi fekkee defoo ko tam mën nga ñëwaat ci vidéo mu moom la ak titre bi ak description bi moom la YouTube di jël comme information utiliser ko xool lan yeneen yenn yeneen vidéo yan ya gën a jege pour mun la ko dugalal deuxième chose bi nga xam nit mën na feeñ fii te fekk bokkul ak yow relation ci lu muy euh, émission ci yu muy def ci wàllum vidéo mooy YouTube des fois suggestion de vidéo itam da koy dugal selon yow mi seetaan nii danga nekkoon di seetaan leneen mi ngi mel ni avant may seetaan làmb bi nii ma nekkoon di seetaan ay débat ay émission Sonko wala may seetaan ay débat Pape Alé exemple léegi may seetaan seetaan yooyu seetaan lu mat ñetti vidéo wala ñeent yu Sonko wala yu Pape Alé Niang yoo xam dafa laal daal si mot clé yoo xam ne am na ci titre bi ak description vidéo bi léegi ma pare si loolu ñëw dugg ci làmb ji dina ma indil ay vidéo làmb parce que làmb laay seetaan mu bëgg ma kon ne ma seetaan làmb mais dina ma indil tam li ma doon seetaan sànq te bàyyi ko ñëwaat dafa may indil vidéo yu am relation ak vidéo bi ma doon seetaan pour fàttali ma ne vidéo yooyu kat maa ngi ko doon sa na ne moom intéressé na ndax ñaar wala ñett wala ñeent day jaxase bi may seetaan ak yi ma doon seetaan mu indi ko jaxase ko fii parce que fur en mesure c'est historique gu euh, recherche ci YouTube chaque jour boo ci duggee façon vidéo yi YouTube gis ni yow heure boo connecté woo moom ngay seetaan façon vidéo yooyu lay indi di la ko defal ay suggestion day indi bi ngay seetaan di la si defal ay suggestion pour boo paree nga seetaan même thème bi ci làmb li yëngatu indi la tam débat politique yi ngay yi ngay ngay seetaan mu indi la ay débat politique parce que gis nañ ye chaque jour yaa ngi seetaan ay émission Pape Alé Niang da lay indi l'émission Pape gis ni doon nga seetaan euh, par exemple émission boo xam dafa laal ci gàmm gi gàmm gi bu gisee loo xam dafa laal ci affaire gàmm gi gàmm gi da koy indil exemple noon la noonu la suggestion di di di di def léegi boo bëggee nag yow nit buy seetaan vidéo toujours su fekkee ni doon na seetaan sa bu passé ñu indil ko suggestion yi ñu indil ko sa dugalal ko fi par exemple tey nga kii Euh, Wasaa TV gis nga dafa dugal combat bi mu dugal bii combat bi boo xoolee ki ko dugal mooy Lutte TV ñoo ko dugal combat bi ñëw nga xam ni automatiquement su bi jeexee mooy ñëw moo gën a am chance pour nga cliquer ko parce moo nekk ci kaw ba pare nekk ci même registre parce que Eumeu Sène Modou la gis nga Wasaa TV ñoo ko dugal gis nga Wasaa TV ñu ngi ko dugal titres yi presque boo xoolee benn lay doon dañoo bokk même mot description boo demoon dañuy nduroo la nga dem si tag yi nag ñu gën a tee nduroo ba pare mu nekk yaa ngi seetaan làmb dafay am chance pour nga continuer seetaan bi affaire noonu lay demee ce qui fait que suggestion de vidéo yi toujours ngeen def seen vidéo la maximum jox ko maximum chance pour di ci feeñ dafa am solo ni ma la ko waxee rek soo bëggee nag euh, euh, suggestion video yi di ci di ci feeñ nit bu seetaan dara ci vidéo su fekkee mi ngi seetaan loo xam ne am na relation ak sa vidéo YouTube di la ko indi rek comme vidéo bi ma leen waxoon sànq ci flash ma ngeen dem daan la woon di defee tag yi ba nga xamante ni seen video bu ngeen bëggee benn vidéo buy dox ngeen nuru ko pour jege ko pour parce que vidéo boobu gis ngeen moom ay junniy vues lay am yow amoo vues yu bëri te bëgg nga moom fu mu feeñ nga feeñ à côté pour ñu mën laa gis da fexe parce que information vidéo yëpp nuru information vidéo bi nga bëgg jege voilà nit boo ko mi ngi mel ni bu nga bëggul nuru benn nit da nga koy nuru lu mooy li muy def yëpp da nga koy jéem a def ngay wax ni muy waxee di defee ni muy defee noonu la vidéo bi tam boo bëggee mu topp beneen vidéo fu mu jëm mu jëm fa dangay fexe sa vidéo bi nuru vidéo boobu noonu la parce que lii boo xoolee kii YouTube fu mu ne nii mu ngi koy defal publicité gratuitement vidéo bi YouTube mi ngi koy defal publicité gratuitement parce que borom ko du jeex na am borom ko teg ko fii mais yaa maa ngi seetaan làmb mu indil ma émission làmb bi kon Wasaa TV seen euh, vidéo bi YouTube mi ngi leen ko indil ne ko fii première position gratuitement to ji fay dara lii mu fa mel ni rek YouTube da la koy defal publicité voilà te loolu dafay yokk sa ay vues parce que boo seetaan bi par autoplay bi mooy daw wala nga seetaan ba play ko plus ngay positionné wu ci ay euh, euh, suggestion de vidéo di ci positionné wu fii si diggante si diggante dix premières vidéos yi toujours say vidéo vues dañuy yokk moo tax toujours de leen travail ci loolu la maximum dee leen fexe seen euh, titre yi ngeen di def nii ci seen vidéo ngeen ci bàyyi xel bu fekkee dafay wax si làmb toujours de leen fexe vidéo boo xam dafa dox te affaire làmb la am view yu bëri ngeen xool titre am nan la ko bindee ngeen jéem ko imiter si noonu bindee ko noonu ba pare fexe moo clé yi jegante moo clé comme ni ma leen ko waxee rek vidéo boobu bu ngeen seen ba léegi di ngeen xam lépp lu si aju tag yi ni ñu koy ni ñu koy defee ci vidéo yi voilà description bi tamit kii description bi dafa gàtt mais mën nga def mën na mën nga def fii détail comme par exemple comme ni ngay deme ci benn site ñu jël benn article def détaillé si comme combat Modou Lo Eumeu seen mënoon na détail fii lu gën a gudd wax combat Modou Lo Eumeu Sène la jour tel la amoon stade tel la amee woon premier combat bi diw moo bëree deuxième combat bi diw moo bëree Modou Lo seen Sène bi neexal nañ ko Modou Lo Eumeu nangam nangam léegi Modou Lo seen Sène yooyu di si génn lu bëri ci wax ji ak lit ak nangam ay mots clés la plus mu bëri ci ci wax ji rek YouTube day détecté ni combat bi euh, euh, vidéo bi kat vidéo la boo xam ni lu bari wax na ko ci combat Modou Lo Eumeu kon vidéo bu bu ñu defee recherche euh, Modou Lo seen pour mu indi ko ci kaw lu yomb la su ma ko indiwul kaw tamit indi beneen ci kaw ma teg ko à côté parce que xam naa dina intéressé seetaan bii bi bi bi nga xam ne mooy daw loolu suggestion de vidéo noonu ngeen koy noonu ngeen di fexee pour di ci positionné wu muy publicité yi comme ni ma leen ko waxee YouTube di defal ay vidéo gratuitement te duñ ci fay dara boo bëggee YouTube nag di indi say vidéo ni mu indi seetaan politique ngay def par exemple nga fexe ba moo clé yi nga xam ne vidéo bi Pape Alé Niang euh, euh, kii na ko euh, def na ko émission bi nga fexe def moo clé yoo xam ni dafay même référence wu ci ci ci même vidéo bi par exemple vidéo bi daw bu fekkee da nga bëgg xam moo clé yi mu dugal par exemple comme waxoon naa leen ko extension bi woonoon naa leen ci ci yi ni ñu koy ni ñu koy ni ñu koy defee nga ma kii ko ma ko comme sax mu mën a génn voilà extension baa ngi nii moo tudd euh, vidIQ boo xoolee am na vidéo boo xam ne expliqué naa su ma ba mu ba mu leer peut-être dinaa dem ba defaraat ko benn vidéo boppam boo xam dina gën a leer voilà moo ngi nii gisoo vidéo bi moo clé nga xam ne moom la borom dugal te ma wax la sànq munoo ko gis extension bi moom vidIQ dafa nekk extension boo xam ne soo ko installé ci sa Chrome sooy seetaan benn vidéo ci YouTube soo ko cliquer da nga ciy enregistré wu nag woon naan lépp ñu ngi koy defee ci beneen vidéo vidéo bi nga xam ne vite kaay vite ay kiiw da bëgg a xam euh, nan nga koy installé ak nan nga ci enregistré woo pour mën ci pour mën ko utiliser nii boo xoolee flèche bi di génn nii waaw flèche bi di génn am na lien bi génn si kaw soo cliquer lien bi lépp lu extension bi nan nga koy utiliser de manière basique ak gratuitement parce que extension la boo xam ne premium la am na fay am na boo bëggee utiliser extension bi 100 pour cent lim capable yëpp da ngay fay mais nag minimum bi muy ngay xam yenn résultat yi xam pourcentage bi ci réseau sociaux yi ñaata ni soo ko gis fan lañ ko gisee ak euh, ranking bi mot clé yi titres yi ndax baax na optimisation bi wala ba woon la mot clé yi nga xam moo nekk ci biir loolu moom gratuit la doo ko fay waaw mun nga koy gis te doo ko fay te ñun loolu lañ ci gën a soxla waaw mais boo ci soxlaa dem au delà de de loolu nag il faut da ngay pour mën a am loolu quoi de am bi voilà di nga vidéo boo munti ubbi ci YouTube soo ko cliqué fekkee installé nga ko ba pare nga wàcc ci suuf nga ñëw mi ngi nii tag de la vidéo mooy mot clé de la vidéo gis nga indil na la ji nga mot mi def rëg-rëg di nga lit tv di nga def na lit tv di nga def na Modou Lo nga def na Balla Gaye Bombardier Papa Sow Siteu Sa Thiès Eumeu Sène Ama Baldé Lac de Guiers Boy Niang Yékini Lac Rose euh, CNG lutte lutte sénégalaise sénégalaise westing mooy xam naa pour combat yi gars dem fee pour boo ci kiiwee Lamine Seck lutte TV xarañ loo Macky Ndoye basketball Tyson Yekini Aziz Ndiaye Elton Gris 2 Gris Bordeaux Arène national Tapha Tine Luc Nicolaï Baye Ndiaye Bathie Seras Lac 2 contre booy Niang gis nga kii li mu def c'est intelligent gis nga moo clé mu dugal fii yëpp dafa am relation ak làmb yëpp am relation ak làmb ce qui fait moom booy seetaan beneen beneen beneen euh, beneen beneen euh, kiiwu làmb vidéo làmb am na mille chance pour vidéo moom ñëw à côté yow say vidéo parce que moo clé yi mu dugal toujours boo moytul dina nekk ci say tag wala dina nekk ci sa euh, titre wala mu nekk ci sa description comme ça moom day fay dafa maximiser chance yi pour mën a feeñ ci vidéo yu gën a bëri voilà loolu dama am na solo bu leen ko négliger lii laa leen doon expliquer mooy mot clé yi wala mooy tag de la de la vidéo fexe leen ba seen vidéo yi nag ngeen ko ci def comme ni ma leen ko wax sax vidéo bi defoon nañ ko soo ko xamagul wala ko comme ni la ko waxee flèche boobu ñu ñu la wonoon soo ci demee di nga ko mën seetaan euh, ba nga xamante leer sa bopp nga koy mën a loolu mooy xam li ñu leen indiloon tey muy euh, suggestion de vidéo soo fekkee bëgg nga daal vidéo boo dugalati mu ñëw su su nit di seetaan loo xam ne jege na ko wala nit di seetaan loo xam ni démb wala bërki démb doon na seetaan loo xam ne jege na sa vidéo YouTube di indi sa vidéo di la defal publicité fii ci watu waa pour par exemple bu seetaanee làmb pare pare xool ne i waa kii kan la Bombardier ko rog ba bal ba combat bi benn ban lay lii gisuma koon xaaral ma xool parce que wax dëgg yàlla man seetaanuma ko woon te xam naa war na neex gis nga gis nga voilà parce que Bombardier voilà mi ngi nii mooy Bombardier bi mu jàppee bi mu jàppee Rocky Balboa wuli ko ba mu nooy noonu xam fekke seetaanu ma ko woon automatique damay bàyyi seetaan voilà ma ko ba mu jeex ma gis ni ah ñoom kat seen combat xaw ma nu mu tudd combat yi ñuy def fële xaw ma France lañ koy defee xaw ma fan su ma gisee boobu boobu boobu neex na ah ma ne ah xaaral ma seetaan ji nga comme maa ngi seetaan combat gladiator yi Bombardier Rocky Balboa automatiquement mu gis na ni façon combat internet MMA ko intéressé na ma mu ne ma yenn combat MMA gis nga pour mu mën ko cliquer tam seetaan ko. ni nga idée bi ma la doon wax gis nga da lay indi yeneen combat MMA gis nga mais comme sànq maa ngi doon seetaan dam làmb gis nga automatiquement xoola indi la ma te làmb bi doon seetaan ñi nga Modou Lo mi ngi ci woon moo clé Modou Lo feeñ que Modou Lo euh, Gris Bordeaux Modou la woon euh, Eumeu Sène mais bi may seetaan ni Bombardier la gis nga ñaari moo clé dañoo daje fi Bombardier mi ngi ci vidéo bi Modou Lo ngi ci mu nil ma combat Modou Lo Bombardier parce que vidéo bi may seetaan nii moo clé Modou mi ngi ci bëri na ci Euh, bi ma bi may seetaan nii moo clé Bombardier parce que moo nekk nii Bombardier MMA bi la mu ngi nii Bombardier contre Rocky Balboa gis nga bii mooy Bombardier bi feeñ na ci Modou bi mooy ma doon seetaan sànq voilà bi ma doon sànq moo amul muy nekk nii voilà gis nga Modou baa ngi nii léegi muy nil ma ko combat boo xam ne ñaar yëpp daje nañ ci Modou Lo Bombardier j'espère que voilà idée bi noonu la utiliser mot clé yi ak euh, euh, titre vidéo yi ak description yi pour soo bëggee jege benn vidéo moo xam vidéo bi daa nekk tendance wala mu nekk euh, vidéo à la mode wala mu nekk vidéo boo xam ni dafa am ay milliers wala ay millions de vie nga bëgg ko jege toujours dangay fexe fexe ay mots clés nga koppee ko su dee par exemple dafa am teg-teg benn benn vidéo spécifique boo xam ne da bëgg toujours fu mu génn say vidéo génn comme ni ma la ko waxee dangay jël vidéo bi si boppam nga nga nga fekk da ngaa wax nag ci même tem ko moom vidéo boobu même bu dee waxoo ci même thème bu vidéo sax amu ci solo mais bu dee mais li gën nag mooy vidéo bo xam da nga ci bëgg a génn à côté fu mu fu mu dem rek nga topp ko vaut mieux vidéo bi wax làmb ngay wax làmb moo gën voilà fi nga ëppee chance parce que bu dee yow par exemple bii dala tegal combat euh, Eumeu Sène Modou Lo yow nag nga def commentaire làmb maanaam nga def jàngat ci combat bi analyser ko yooyu mais nga bëgg fu ñu wane bi wane sa wane sa sa vidéo analyse bi da ngay def euh, analyse intégralité combat Modou Lo contre Eumeu Sène arène nationale wala stade tel léegi euh, titre bi yëpp day am ci sa biir titre yow voilà day am ci biir titre soo paree description bi tam nga def description bu gën a détaillé expliqué combat bi expliqué yi ñu ci gis ak yooyu bañ bañ cee fàtte dugal moo clé tamit ak tag yi ci biir euh, description bi nga ci dugalaale ko technique SEO la waa nga dugalaale ko ci soo paree tam ci mot clé comme ni ma la waxee vidéo bi nga ubbi ko xool mot clé yi mu def teg-teg nga def ko yokk ci yeneen am yoo ci wàññi ce qui fait que bi fu ñu ko cliquer mu génn rek say vidéo am na 10 000 chances pour mu génn si wetam loolu mi nga xam mooy xamoo nekk li nga xam daal moom laa leen indiloon tey tey kon euh, leen gërëm li ci seetaan bi nga doon seetaan di ñëw ñu waxaat leen beneen secret ci YouTube boo xamante ni bu ngeen koy def seen ay vidéo dana gën a jëm kanam dana gën a am doole di ngeen am plus de vues. Euh, te du ñem foofu bu ñu paree ci programme YouTube dañu leen dugal ci yeneen programme yoo mën a gagné si internet parce que internet doo rek focaliser que internet li mu baaxoo pour nga ci gagné xaalis da ngay gagné xaalis ci YouTube di gagné xaalis ci blog di ci euh, affiliation di gagné xaalis ci ci ci ci vente en ligne mën dem ba ci am salaire boo xam ne mun foogoo woon sax dinga ko mun a am ci liggéey. te loolu yëpp ci internet nu ko xam toog sa kër sa connexion di di liggéey voilà te on vous parle en connaissance de cause moo tax ñu leen di demander formation yi su fekkee da nga ko da nga di bëgg sérieusement ci internet mën nga ci am salaire digne de son nom formation yi nga ñuy suivre pas à pas lépp lu ñuy def nag bu ñu la ko wax rek nga seeraan ko pare dem toog defoo boo ko defal dama du am benn njëriñ lu ñu la woon ci vidéo yi rek automatiquement bu ko négliger commencé ko appliquer. non seulement nga commencé vidéo bu bees boo def appliqué mais foo amee temps libre nga dem ci sa vidéo bu passé boo xam dugaloon nga ko te appliqué woon stratégie yi nga def ci stratégie buñ jeexalee ci YouTube nag comme li ñu ko wax dañ ñëw ci yeneen programme yooyu mën a gagné xaalis ci internet parce que programme yi ñu joxe pour l'instant lii nii ñuy gagné xaalis la ci YouTube te façon yu bëri nag lañ mën a gagné ci internet yëpp dañ leen ci seetaan bi nga boo ci fii ci bouton bi gère bi boo ci cliqué rek mu génn su dee abonné nga ba pare nag abonné abonné nga ba pare cliquer vidéo bii nga seetaan ko mooy vidéo bi ñu mujjee dugal moom ay mbir ngi ci ay tips ak ay secret